fanweereelu bind ak yeent mooy numéro 34 incha allah sëriñ bi ba léegi mi ngi ci yu wér yi yonent bi alayhi salaatu wasalaam dañu jàngal ay njariñ yoo xam ne ni mu amee solo saa rek moo ko xam nee na aydan ba tey abi masudin al ansaari radiallahu anhu jële nañ ci abu masud al ansaari qaala mu wax xaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam nee na alayataani min aaxiri suurati albaqara al ayataani ñaari aaya ya min aaxiri suurati albaqara ca mujjug saaru baqara man qara'ahuma ku leen jàng ñoom ñaar fi laylatin ci guddi kafataahu ñu doy ko sëkk nag muslaay yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na saaru baqara ñaari aaya ya ca mujj amana rasul ba bam jeexee nee na képp ku ko jàng ci guddi loo ci jublu rek man na ko loo ci jublu rek doy na ci sëkk wa fi saxiix Buxaari an Ubaadat ibni Saamit jële nañ ci saxaaba bu tedd Ubaada ibnu Saamit radiallahu anhu yàlla na yàlla gërëm ko qaala mu ne yonent bi salaa sallam nee na man man tacaara ku yeewu mina layli ci guddi gi mu ne yaani daa jublu na istayqada mooy yeewu na rek mooy ku yeewu baatub tacaara la lay firil mu doxale fi nag di la leeral alxaamuus lii mu la bindal li ne la alxaamuus mooy dalaa bëgg a wax ne la nañ dem ci xaamuus mooy dictionnaire dictionnaire dalaa bëgg a wax rek ne boo demee ci dictionnaire ba xool baatub euh, attaaru dana la ko firil moo tax mu ne attaaru assaharu mooy ñàkk nelaw foog wa taqallubu ak di wëlbatiku rek xaneel firaasi ci lal bi lay lan ci guddi waaw mooy da nelaw mu yàgg nga jekk-jekk yeewu wala boog mooy da nga mënta nelaw ne ci lal bi rek di wëlbatiku wala da ngaa nelaw ba ba mu yàgg eh, nga di wëlbatiku ba yeewu ci guddi gi rek kon mooy mooy man taara kon loolu baat bi rek la lay firil léegi nag ku yeewu ci xaaju guddi gi noonu fa qaala mu wax ne laa ilaha allah waxdahu la sharika lah lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shayin qadir walhamdulillah wa subhana allah wa la ilaha illa allah wallahu akbar wa hawla wa la illa billahi al ali al suma xaala topp mu teg allahuma agfir lii allahuma yow boor bi lii yàlla nag ma jéggal yàlla nag ma jéggal aw daxaa wala sax mu yeewu daa di ñaan wax loola ba noppi daa di ñaan ustujiba lahu ñu nangul ko fa in tawadda bu jàppee nag su ma salla topp mu julli xubilat ñu nangu xubilas nangoo salaatuhu julleem waaw sëñ Ubaadatu ne yonente bi salaahu salaam nee na koo xam ne dafa yeewu ci xaaju guddi gi daa wax li tàmbalee laa ilaha Eh, allahuma xfir lii nee na kookee day eh, saa borom subhanahu wa taala bu ñaanee suñ borom nangul ko fa saase foofa bu fekkee dafa jàpp daal di julli suñ borom nangul ko naafilaam foofa waaw maanaam nga nelaw ba xaaju guddi nga jekki-jekki yeew wala boog da mënta nelaw nga wax li tàmbalee laa ilaha illa allahu ba ci allahuma xfir lii nee na loolu képp ku ko def sunu borom subhanahu wa bu ca yokkee def ak ñaanam suñ borom nangul ko ak ñaanam waaw bu fekkee daa jàpp julli nag suñ borom nangul ko naafila googee mu def waaw nangu nag yombut wa fiihima nekk na ca saxiihul buxaari ak saxiihul muslim an abi xataatata radiallahu anhu qaala mu ne qaala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam bi neen ar gént ga alxasanatu gay aji dëggu minallaahi mi ngi bàyyi ci yàlla wal xulmu gént ga nag min ashaytaani ma nga bàyyi ko mooy géntu kese mooy géntu njóobee di rek fa man raa ku gis fi manaamihi ci ay nelawam say an dara yakrahuhu loo xam ne da koo da koo sib fal yanfus na tifli xan shimaalihi ci wetuk càmmooñam salaasan ñetti yoon wal yataawaz te mu muslu billahi ci yàlla min asheytaani rajim ci seytaani mi nga xam ne dañ ko dàq ci yërmande yàlla fa innahu naka moom laa yadurru subaa du ko lor abu xataada moo jëlee ci yonante bi yonante bi sallallahu alayhi nee na gént gu gént gu dëggu day loola moom kooku na xam ne xeetu wax yu la bu ko yàlla sànni rek waaw gént gu dëggu loolu ci yàlla lay bàyyikoo waaye yeneen xeetu gént yi nag waaw yeneen xeetu gént yi mooy géntu njóobeen yi gént ay nangam di la dàq ak nangam nag lu na dugg ca nee na yooyu moom ca seytaane lay bàyyikoo <laughs> waaw koo xam ne da tëdd di nelaw nga gént gis loo xam ne baaxut bëggoo ko da nga koo ragal waaw boo yeewu da ngay tifli sa wotu càmmoñ ñetti yoon ndànk rek boo noppee daal di ñaan yàlla mu musal la ci eh, seytaane ndax seytaane moo koy def waaw am na beneen riwaaya boo xam ne daa wax ne boo géntee gis loo xam ne dalaa bégloo dalaa bégloo eh, kooku moom bul ko nettali kenn ku dul koo xam ne wóor na la ne li nga bëggal sa bopp rek la la bëggal mooy yéene na la jàmb bu fekkee da ngaa gént lu baaxut nag bul ko nettali kenn moom moo tax jékki-jékki gént lu baaxut dem di ko nettali baaxut waaw baaxut naan lu muy fi rek déedéet waaw loolu wute na ak njàngalem ngeen gi mi def boo géntee gis lu baaxut noppi ca te ba nga yeewoo rek tiflil sawetu sawetu càmmooñ ñetti yoon waaw sa mbagum càmmooñ nga ne suñ boroom lu bon lii ma gis yàlla na ma musal ci musibaam nee na su boobaa doo la bi moo ko wax de <laughs> loolu boo ko defee waaw allahumma indi a'udhu bika min sharri ma ra'aytu suñ borom lu bon lii ma gis yàlla nag ma ci musal te bul ko nettali kenn yoronte bi bi yàlla yónni moo ne kon du la lor loolu doy na sëkk jëru na di wër di wootee di laaj naan damaa génn dama jee tiit ak léeg-léeg ko wa fiihimaa ñëw na ci asaxihu albuxaari ak asaxihu muslim aydan ba tey an ibni abbasin radiallahu anhu mu ne anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam naka yonent bi yàlla bi kaana nekkoon na yaquulu di wax inda alkarbi fa njàqare la laa ilaha illa allahu alazimu alxalim laa ilaha illa illa allahu rabbul arshi alkarim rabbul arshi alazim laa ilaha illa allahu rabbu samawati wal ardi wa rabbul arshi alkarim ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bu masaana am njàqare waaw bu ko njàqaree masaana dikkal nee na loolu noonu la koy ñaane loolu lu muy tekk mooy ñu nit bu ñu njàqare gaare rek ñu wax ko laa ilaha illa allahul azimul xalim laa ilaha illa allah rabbul arshil karim wala bok rabbul arshil azim laa ilaha illa allah rabbu samawati wal ard wa rabbul arshil karim moo ci mujj wa fihima aydan an anas radiallahu anhu qaala mu ne aktharu duaai rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam li ëpp ci ñaani yonent bi daan ñaan mooy rabbana atina fi dunya xasana rabbana yow suñu borom atina yàlla ñu jox fi dunya ci adduna xasana xasana nag yaatu na moom waaw dañ koy firi aw yiw rek waaye lépp lu baax dugg na ci biir wa fil axirati yàlla nag ñu jox ci alaxira xasana waqinaa ta nga fegal nu azaban naari mbugalum sawara ne yonent bi li ëpp ci baat daa ñaane mooy moo di ñaan googa moo tax Sëñ Tuubaa yokk ci ne fayen baxi kon de dana jaadu al iktaaru baril minhu ci moom ñaan gi fii kulli waxtin ci wépp waxtu wa ala kulli ci wépp mala waaw kon eh, war nañ koy baril ndax lu tax yonent bi taamu ko rek mbir la wa fi saxiix muslim ñëw na ci saxiix muslim an jaabir radiallahu anhu qaala mu ne samitu maa dégg rasulullah yonentu yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne isaa daxala bu duggee ar rajulu waay baytahoo këram fa zakarallaha mu tudd yàlla inda duxulihi fa ak namma tàbbeem akay wa ak fa namma euh, lekkam mooy fa aw ñamam rek mooy fa nammee xéewlu xaala day wax asheytaanu li ashaabi yi ñeel ay àndaaleem ni leen laa mabita lakum fii de amu leen fi am panaan laa mabita déet am panaan lakum di leen ñeel wala acha du caagiru ab reer way saa daxala bu duggee nag moom waa ji wala mu yaskurillah te tuddut yàlla inda duxulihi fa ak duggam xaala daane adraktum aksi ngeen nag dab ngeen al mabita panaan ma wala acha ak reer ba ah, kon day kuy dugg sa kër ngaa bàyyi xel sëñ jaabir mu baax mi nee na moo dégg ah, loolu lu wóor la yonent bi sallallahu alayhi ne saa yoo xam ne waa ji mi ngi dugg këram daal di tudd yàlla saa yoo xam ne taaj nañ aw ñam ñam wala ak naan wala lu mën mu daal di tudd yàlla nee na seytaane mi nekkoon mi wër wut fu mu dal <laughs> na seytaane day wut fu mu dal ànd ak ay gaayam yàlla ci yàlla musal fu mu dal de du baa nee na seytaan dana daa ah, fii de du ab daluwaay tey amul dara luñ fi mën a lekk ndax kii lépp da cee jiital yàlla lépp da jiital yàlla waaye bu fekkee daa sàggan nag ba tuddul yàlla ci aw ñamam tuddul yàlla ba muy dugg këram seytaan dara bisimilah ak agsi nañ ci dal bi waaw ñëw leen dal su ko defee nag kër googa wax ku xam ne lu ne fay xew waaw kër dal lu fay xew ala ci yàlla musal wa fi sahih muslim ñëw ni sahih muslim xan suhayl suhayl ibnu abi saalih mu ne arsalani daf maa yónni woon abi saa waa ah, kay muy abu saalix kon ilaa bani xaarisata jëm ci giir gu tudd bani xaarasa xaarisa wa maxiita ànd naag man xulaamun as ngóor lanaa di ñu ñeel muy sunub jaam rek xëy na fa naadaahu mu woo munaadin ayi woote min xaa'itin ci ginnaaw ab miir bismihi jaari ci aw turam nag wa asrafa mu daal moom waa ji mu daal di yéeg waaw ah, moom waa ji kan la mu ne ëllësi waa ji nga xam ne max mi ngi man alal xaa'iti ci miir bi falam yara shay'an gisul dara fa zakartu fa zakartu ma nettali loolu li abi ñeel wa qaala mu ne ma law shaartu su ma yëgoon ne naka yow talaxaa da nga dajeg haasa lam ursilka kon de la yónni walakin waaye isaa sami'ta saa yoo déggee sawtan ak fa naadi na nga bi salaati ci noddug julli ok naka man sami'tu déggoon naa aba xurayrata radiallahu anhu yuhaddisu muy nettali ne anna nabiya sallallahu alayhi wa sallam yonent bi wax na ne inna seytaan naka seytaane isa nuudiya bu ñu noddee bi salaati ci noddu julli adbara mu wane ginnaaw daw sëñ Suhaylu mi nee na baayam Abu Saalix da koo yónni woon mu ànd ak seen seen seenus ngóor maanaam seenu jaam xëy na mu di ko gunge ñu dem ba mu ñu dégg am koy woo xale bi xale bi mu àndal am ko koy woo ci aw turam mel na dafa nekk ci ginnaaw miir bee di ko wow nee na xare bi daal di yéeg ci miir bi xool gisul dara ba mu ñëwee nettali ko baayam na koy na ko noonu day bi bi ma yónnee ma jëm ci giirug Banu Xaaris dañoo dem bi ak góor si ma àndal am ku koy woo di jaar ci aw turam mu mel ne ci ginnaaw miir bi la nekk waaye daa yéeg gisul dara baayam na ko ah loolu de doy na waar ma ne su ma xamoon ne lu mel noon dan la gaar kon du ma la yónni sax waaye nag lu mel noonu saa yu la gaaratee am ku lay woote gisoo ko xamal na seytaane la yow daal dalal di nodd rek waaw jekkal-jekk rek nodd allahu akbar allahu akbar soo ko defee da nga ci mucc ndax dégg naa ci abu xurayra mu nettali jële ci yonante bi alayhi salaatu wasalaam mu a seytaane moom saa yoo noddee rek mu wane ginnaaw daw a ñimu turu yàlla mu yokk ca ne fa yen baxi da nga jaadu de li man ñeel képp koo xam ne sa yëg na bi xayaalin ci ceeñeer waaw mel ne ko jommi mina seytaane gu bàyyi ci seytaane aw xuulin wala njuuma waaw yu mel noonu ceeñeer gu bàyyi ko ci njuuma xuul njuuma rek aw jaanun wala boog aw jaanin wala jinne loolu képp koo xam ne yëg na lu mel noona maa ngi koy dana jaadu an yunaadiya mu nodd bil azaani an yunaadiya mu woote bil azaani ci nodd rek mooy mu nodd rek wa an yaqra ak ayit mu jàng tayit mu jàng ayatal kursi ayatal kursi okay nee na comme noonu la demee rek képp ku yëg yu mel noon mel na daa am loo lay jombal wala ay njuuma nga jeg ja xool gisoo dara wala mel na am ku lay woo noddal rek boo ko noddee rek incha moo xam loola ca saytaana la bàyyi ko wala njuuma wala jinne yi eh, dana la abal nga boole ci nag jàng ayatul kursi yi moom moo aay ci xeetu saytaanee ki yu mel noonu lañ ci yàlla musal dala indi nag ne la alxaamuus ne la nañ demaat dictionnaire dem xooli baatub xuul geem wax xuul xam nee na bi xayaalin min asheytaani aw xuulin moom la lay wax ne la boo fa demee da nga gis ñu fiiri ko ne xaalahu buñ ko waxee rek mooy ahlakahu alag na ko alag na ko karta kartaalahu ni ko yongu na ko yongu moom mooy eh, assassiné mooy rey boo xam ne dañ ko dañ ko organisé a ah, di yoot di la yoot ba rey la yal na ci yàlla musal ak jël na ko min xaysu lam yadri foo xam ne mm, yëgu ko waaw nee na baatub xuul buñ ko waxee rek loolu lay firi jamxo bi mooy arwaal xuul mooy benn njuuma arwaal mooy ay njuuma wa saaxir danañ ko firee tamit njabarkat wa saaxiratul jinni waaw wala njabarkat njabarkat bu jigéen boo xam ne ab jinne la ba tey loolu lépp xóol xeetu mooy njuuma rek wolof moom bu ne njuuma rek jeexal na wax jinne yéegi dugg nañ ci biir wa cheytaanu danañ ko féere tamit cheytaane soo xam ne yakulu naasa day lekk nit <laughs> loolu kii man la waaw nañu am na cheytaane soo xam day lekk nit nee ba tey buñ nee xóol dana ko firi kon loolu lépp lii mu la leeral li tàmbalee mu ne bi mu ne al alqaamus ba léegi rek jàppal ne baatub alxuul la la bëgg a firil rek ñu jàll mu ne wa fi saxiixil buxaari ñëw na ci saxiixil buxaari an abi xurayrata radiallahu anhu qaala mu wax ne wakkala nii waaw kay wala boog mën nañ ko yemale foofu ba ëllëg ñu tàmbalee ci xadis boobu ndax dafa xaw a gudd wallahu aalam alhamdulillahi alkarimi silmilan ala sixaali bi furudin wa sunan sakartuhu lian xad saxani liwatani bi nafa ma